inni la xel

li agi an bila bi muntadi

زيني تلاوة ما جال من نبي إلى الأمين نسافيه المصطفى سنادي زليل ليك عبد الله وكفى ملازما كل ما

léegi بنوح وبإبراهيم لغفر سنوبي وكفني الرجيم وكن بموسى وبجاي عيسى واقيني دنيا وأخرى بوسى وبمحمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم عليهم ليهب إيمانا قد صاحب الإسلام والإحسان بحرمة الصديق والفاروق جلي بالإخلاص والتوفيق بحق عثمان أقي النورين وبعلي والد الزبطين هب لي في دنياي مع أخرايا النور والعلو والمزايا بحق طلحة وبالسبير وحق سعد نجني من ضير وبسعيد وابن عوف نجني من كل ما أخاف من فتن وبأبي عبيدة تجلب ما يفيد إلى جنابي واكف عني ما يبيد بعق عبد الله نجل العمي أي ولد العباس كسر علمي باسي وحمسة عنك في بحرمة القاسم ثم التائري صف السواعر مع دمائر بحرمة الطيب إبراهيم أدم علي البسر والتكريم بجاه فاطمة أفتم نفسي عن كل ما يجرني لعبسي أملي جميع الذي خلق الدراسي seen bay tudd Amad Ali woo ko jur Sakariya Serifun bun Serifun ma jubluwu la sa kër mam l'islam yebu ko ak xëy yóbbu ko ci jikko juddu daraja esprit compétence expérience na màggal la sa yaay tudd ku yàq am dana ko defaraat dama ne la baax yàgg na fi waaye sa kër maam wàlliwu fa lay bawoo dama ne la doo dem fenn bopp fay wax askan wi nga bokk buñ leen tegee loxo ni leen kaay leen ñu bon ñu ni teggil xamuñu ko yàlla liir bi dund yàlla liir bi dund da ngaa bëgg maestre dama ni sama mag ji du dem fenn bopp fay wax soxna màggal la yaayam tudd bokk ndeyam soxna ndey buso soxna xadi buso mi ci jumaa ji mu soxna may galas ñooñu sëriñ alaaji buso safoor la seen baay tudd sëriñ baaraa ko jur saa busoo ko jur saa buso sëriñ busoo bee ko jur waaye soxna mati ñang soxna aafe ñang mamati ñang soxna aw buso mbokk ndeyam soxna bale ak soxna mi te buso mi jur seen du xaadir waa damay laaj aafe jaw fu ko nit di jawe aafe fu la nit di jawe ci kër ak kër yaay mbokk ngi nii toog fu la di jawe sa kër maam lislaam yóbbu ko sa kër maam aqiqa jëmu ko man nga luye sees ak baas waaye boo wootee nit ñi ñëw dama ne la jikkoo di nit ka gën jikko moo la gën fuuf barke Serigne Touba lii nga ma jox moom la may defal chaque jour di ma joxe mbubb di ma joxe xaru tabaski yàlla liir bi dund afa yaa am jom soxna Layla mu baax mii nga xam ne ku yàqi waxam da koy defaraat fii mu toog nga am maanaa lool xam sa bopp am personnalité ba nga fi ñëwee ba léegi defoo fi deli waxoo fi deli man bas bari bagage nag nee naa la kenn mënut a moom sa poos moom ma danoo daje nga defal ma teraanga nga am jom ñu may la njëkkee nga am personnalité def hôtesse xam nga loo woote balaa njaay jàmm nga riis am personnalité juddoo ci ma yëru woo ci bëgg jeex réew bi nag Serigne fal di ko jëfal bu Kazu Rajab bu jotee nga gaaw ci bu màggal jotee nga gaaw ci doonu taalibe waaye fii nga ñëw nag taalibe rek nga fi looloo ma neex ci mbir mi da ngaa ñëw jënd jaay lépp sa njureel jënd ko taalibe bëgg Serigne Fallou lu réew bi soxna Awa Bousso ko jur soxna Mati Ñang maam Afe Ñang soxna Umu Kalsom sa Sanxe Absa Sarr Abadika Camara moo jur daana nume Ñang mu jur soxna Sowaalo yow ba nga baaxee du tey jëlal ma ko damay insi yow barke Serigne Touba say tera yaa ngi nii nga indi ko nga baax xam sa bopp am maanaa am personnalité soxna lay laa lii laa wax tubaarkàlla bu yaakoom matalee dañuy ñëw gis nga Afe bisam noonu lay mel li ma ko wax léegi alaaji mataar Jaw mais ñu fi am jom ñu bari moo leen man wan jom jàngal leen jom di yëkkati alalam di leen jox ñuy liggéey jàngal ñu baax benn ci mën mii tubaarkalla macha allah waaye dama ne Serigne Touba bi muy feeñ jamono dafa fekk askan wu dul tooñ duñ topp ak tooñ muy mbusoobe kër maamam mu feeñ fa soxna jaaraa ko jur mbokk ndeyam sëñ mbusoobe ak mati buso ak xujje buso waaye mbokk baayam nag saa buso saa buso moo jur baara antara ki mbokk ndeyam njàmme njàmme ak baara bokk nday ak baay baara moo jur alaaji sëriñ bu sa safoor ñu dénk ko Adja Ndiaye mu am ci ajartu màggal bu sa mbokk ndayam soxna may aj màggal bu so màgg baax ñu jox ko alaaji Matar yow mii di faj boobu gàcce yi di ñu dimbali ba ñu ñun génération bi moo ñu jàngal baax jàngal ñu jom ak liggéey mu am ci Matar mii nga xam ne li nga ko wax léegi doo dem fenn ëpp fa wax mu jël nag liggéey ak jaam yàlla li sëñ Tuubaa maamam wax mu def ko ci boppam bii di taral nag tubaarkàlla maasàllaa ku mu war a taral yaayam dafa gërëm gorom léegi ma ne ko goro bu xool sa borom kër day baax barke yonent bi goro bu xool goro bu xool ni sa borom kat def ci ndeyam dalay taral barke yonent bi tubaarkàlla maasa allah ñu ngi lay ñaanal sa doom ji yàlla nga fekke njariñam ci barke yonent bi ajaratu màggal buso dañuy woo ñun géwél yi te géwél boo ko bëggee taral da nga koy woo man de dégg du yóbbu fenn waaye sa yaay lu mu xewle barke sëriñ Touba ku téléphone am moo ma indi fii damaa bàyyi xew yi ma am yëpp tey ndax sa yaay barke sëñ Bamba yàlla na yàlla guddal fanam may ko wér bas liggéeyu nday bitig la ku rek la perte sa yaay la tooñ ajaratu màggal buso mën naa am lu ne parce que nag ba muy metti moom rek la woon Touba Bogo ak liggéey ba macha allah ba tey ji sato yi taxaw R plus 4 yi am R plus am lépp grâce à ajaratu buso moo ko liggéey ba muy nekk Bogo moom rek la woon barki yonent bi أوزي بكونك للمؤمنين wajjal namadani salli